ne saa yoo ko dàqee wax ci say soxla muus mi baax na ci kër gi jërëjëf mbokk yi ci ni ngeen ànd ak seen télévision Futur Média seen émission sama kër euh, tey nag euh, ñaareelu euh, kon pàcc bu ñu jagleel max yi ñu yegsi si ngeen si émission bu samedi bi jàll professeur Abdoulaye Baylan Ndiaye lu mu rekk daal di expliquer max yi nu ñu rekk daal di dundee xeetu max daal di bari loolu mais ñu ciy gën a rencontré fii ci kon suñu réew bokk na ca ñi nga xamante ni dañuy rekk daal di ŋeeñ bu baax baax bois bi ndekete ca gannaaw am na ab dëkk bi nga xamante ni def nañ ko euh, ci ginnaaw euh, am roi am ren ak ñi nga xamante ñoom ñoo leen di liggéeyal gis ngeen ko euh, itamit wax na ci bu baax a baax mais aussi max yi nga xamante ni ñoom ñoo ay ci lu mel ni këyit ndaxte xam ngeen ne mu nekk livre mu nekk xaalis wala yeneen xeetu këyit buñ koy rek daal di denc i faut ñu bàyyi ci xel ndaxte max yi mun nañu rek dal di attaqué bu baax a baax xeetu këyit yooyu ngeen ñëw rek xëcc fekk ne France daal di xëddeen tey nag dañuy continuer ba léegi émission bi yeggali ak professeur euh, bay Bayla Ndiaye buñ ca nag euh, waxtaan ak ki nga xamante moom mooy docteur euh, Dieynaba Sall si bu ISRA bu Saint-Louis moom tamit wax mu ngëneel yi nga xamante ni max am na ko ci garab ndaxte bu ñu nee sama kër aussi gàncax ci la bokk alors professeur ñëwaat nañu tey mm-hmm. alors ba ñuy xool. là c'est euh, beneen façon max. max bi. ci biir bois lay dundee. du hmm. génn si du génn bois bi. du génn bois bi. du génn bois bi si biir rek lay nag. nu mu tudd. Euh, crypto termes crypto caché termite voilà c'est termite caché qui vit. d'accord à l'intérieur du bois. maanaam daal dafa nëbbu ci biir bois bi du ci génn. ci foofu lay liggéey voilà yenn saa ci on sait même pas qu'il est là. Mhm. la porte euh, la planche et. entière on voit rien du tout. Mm -hmm. alors que la colonie mi ngi si biir. d'accord voilà. parfois hein, quand l'attaque est avancée on peut toucher et puis là ça se casse. d'accord donc on voit que l'intérieur est mangé. dañ koy consommer ci biir daal maanaam. waaw dañ koy consommer ci biir. Mhm. mais est du max yi ñoo gën a dangereux kon ñi nga xamante ni duñu génn dañuy lekk ci biir te fekk ne peut-être euh, mu nekk porte wala dara. Mhm. ñu lekk ko ci biir nga xamante ne benn moment peut-être accident mun na am. Mhm. parce que mun nga ñoo rek fekk ne que euh, affaire bi dafay fënax. effectivement donc euh, ils peuvent rester à l'intérieur. di lekk euh, bois bi. alors que doo gis dara. bi wala nga toog si chaise bi après. mu damm comme nii comme par exemple xool leen nii. voilà euh, kii bi nu mu mel nii dama laal rek euh, mu daal di damm. parce que termites yi dañ ko dañ dañ ko daal di lekk. Mhm. maintenant on reconnaît la présence de ces termites par sa euh, wala ma graay ay graay yu nekk si suufu meuble yi wala si suuf porte yi. Mm. loolu mooy wane. si euh, meuble boobu wala si porte boobu am na ay max. am na ay max am na ay max am na ay teen. yenn saa nga gis ko nga ne waa lii nii que du janax yee ko def neex na max yee def. max yee mhm. ko def bu mhm. quasiment dans toutes les maisons a. d'accord systématiquement on les a. là où il a du bois il y a des trucs a. Mhm. y compris au palais de la République. ah oui. <laughs> ban ban dëkk la jógee ma genre max ah, ah, certains chercheurs qui disent qu'ils viennent de l'Asie euh, surtout de l'Asie. Mhm. Euh, qui avec les bateaux euh, sont arrivés en, mhm. Afrique. D'accord. Maintenant on les trouve un peu partout dans le monde. Hein, mhm. le commerce. voilà max bi nëbbu nag moom moo def lii max bi nga xamante ni moom mooy nëbbu ci biir euh, ci biir bois yi euh, euh, mooy nga am sa chaise wala nga am sa fauteuil en bois wala sa armoire ñu nekk ci biir di lekk def ci biir seen galerie te yow doo ko doo ko gis da ngay jékki saay rek gis kon sa meuble wala sa buntu wala sa armoire mu daan di daanu te doo comprendre lan moo tax nga yaakaar ne ka la jaay armoire peut-être moom moo deful la ko war ci liggéey bi fekk ne max yi ñoom ñoo ko rek daal professeur wan nañu euh, max boobu ban façon max la ak fa mu jógee ne échange yi nga xamante ni peut-être am nañu ko ci wàllum bois yi ni mel moo fi dugal rek max yi euh, moo tax nag bu nekkee da ngeen di bale euh, seen kër ngeen gis ci genre kon grain yu mel nii Euh, yi nga xamante ni euh, kon euh, yor nañ ko fii ci suñu baaraam ngeen xam ne max yi ñu ngi ci seen kaw rawatina nag ci meuble yi ngeen xamante ni yéen a ko ci rek yéen a ko daal di yor te max bi nekk ci biir kon di ko lekk ndaxte bii bokk na ci max yi gën a dangereux yu ñoo am kon ci espèce bi ñii di lekk rek te duñu feeñ léegi professeur dañuy ñëw léegi ci wàllu moytandiku quand on dit moytandiku on dit prévention su la neexee prévention léegi naka lañ war mën a def ba prévenir soutenir max yi nga xamante ne ñu ngi koy gis euh, ci euh, ci ci Sénégal bi yëpp laa mën a wax. parce que pour les euh, espèces yoo xam ne ñu ngi si biir suuf si. di génn en construisant des galeries sur les arbres et cetera. ñooñu ils ont absolument besoin du sol si sol bi dañuy nekk. donc avant de construire il faut prendre le soin de d'enlever Euh, les souches des arbres qui sont à l'intérieur. maanaam seen seen seen seen racine. les racines des arbres voilà des des max ñu dindi ko ñu dindi ko. et puis aussi en. construisant les fondations du, du bâtiment faire un traitement préventif mhm. loolu mën na aar euh, bâtiment bi si si ciment mhm. euh, l'autre euh, les autres pour les autres espèces mhm. comme les cryptothermes qu'on a là là il faut plutôt avec euh, les menuisiers euh, les gens qui travaillent le bois en fait il y a un traitement préventif du bois à faire donc yooyu on peut aussi former les gens par rapport à, au traitement comment ça se fait quels produits utiliser pour mën kon kon balaa ñuy def euh, meuble yi euh, comme ni ko waxee il faut ñu isoler aussi. Mm. Euh, voilà ñu traité ko pour mu bañ a attaquer li nga xamante ni moom mooy moom mooy bois bi. mais surtout sànq yaa ko doon wax législation bi nga xamante ni war nañ ko tëral. Mm. pour képp kuy tabax ñu forcer la pour nga dem def fi étude de sol xool ndax suuf si am na termite wala amul termite pour ñu mën ko daal di isoler parce que aussi yenn saa yi sax mën nañ jàpp ne investissement la bi nga xamante ni du ko tabax sa kër ba pare te fekk ne que fi nga tabax xooloo ko ba max yi euh, consommer ko mm-hmm. euh, loolu aussi euh, jar na war waaw c'est des pertes économiques importantes mm-hmm. euh, au niveau national mais aussi au niveau individuel c'est des pertes aussi mm-hmm. quand on perd ses portes ses meubles son argent parfois aussi c'est des documents importants voilà ça ça c'est des pertes qu'on inestimables en fait tout à fait tout ça, je pense que c'est quand même ce important de prendre cette précaution-là euh, qui peut quand même euh, être économiquement euh, très rentable. rentable. <laughs> et aussi par rapport aux individus aussi, peut sécuriser un peu les documents, ça peut sécuriser les bâtiments. Mhm. Parce qu'il y a aussi cette question de la sécurisation des bâtiments. Au-delà des bâtiments eux-mêmes, il y a aussi euh, le patrimoine. C'est ça. Au niveau des habitations. Mhm. Ça peut être des collections, ça peut être des objets d'art, etc. des, bibliothèques. Mhm. Voilà. Mhm. Euh, heureusement, de ce point de vue, les gens sont avertis, donc il y a des, quand même des mesures euh, préventives qui sont mises en place pour essayer de protéger. tout à fait voilà. problème bu am am na solution max yi am nañ solution kon nag nañ ci rek daal di taxaw mais ban kon moo ëpp max fii Dakar. Euh, <laughs> parce que en fait. en fait ces macroter ces on les trouve partout. Uh-huh. partout il y a des bois on peut les trouver. Uh mm-hmm. -huh. les euh, les termites qui construisent les plaquages de terre. Mm-hmm. c'est surtout dans les zones où on a un sol plutôt argileux. Mhm. les termitières, parce qu'ils ont besoin d'argile pour pouvoir ah construire. Ah oui, d'accord, voilà. Euh, quand on est dans une zone où c'est plus, le sol est plutôt sableux, là c'est d'autres espèces de termites qu'on trouve qui sont aussi voraces que euh, les macrothermes aussi. Donc il y a le type de sol mhm. qui peut en fait être déterminant par rapport aux espèces qu'on qu'on peut avoir. d'accord donc mais amuñu benn koñ bi nga xamante ni peut-être benn quartier bu gën a kii mais sànq yaa ngi wax sol bu argileux euh, et on a vu que euh, lancé nañu euh, ay villes yu bees yu si mel ni ñaajo donc ça veut dire que foofu aussi source de de de ah de, ah, vont avoir des problèmes avec les trains pendant bon quelques dizaines voire quinzaine d'années. loo ñuy wax ni waaw <laughs> jam ñaajo ville bu bees bi ville bu bees bi dañoo nar a am ay problème partout on a euh, de nouveaux quartiers même si ce n'est pas de l'argile mhm. les premières années les dix premières années les premières années c'est un gros problème mm -hmm. c'est c'est après les termites et les euh, hommes ça fait pas très bon ménage sur le long terme mhm. mais les premières années Il y a beaucoup de difficultés. Sauf peut-être pour ces termites-là, eux, les cryptotermites, eux, ils sont bien adaptés mhm. au cadre de vie, à notre cadre de vie. Donc mhm. ils sont tranquilles. Mais terewul la ñuy lekk suñu ay chaises bu ñu toogee ñu daanu. Ah <laughs> en tout cas professeur wax na ko euh, ay euh, villes yu bees yu ci mel ni par exemple jam Diamniadio Lac Rose ak peut-être côté Diass ñi nga xamante ni ñu ngi tabax côté yooyu nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci li nga xamante ni euh, moom mooy max yi ñu daal di koy peut-être traité émission bi nag émission alerte la pour ngeen bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum kër ak euh, la ko wër en tout cas professeur Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci ni nga àndee ak ñun euh, ci émission bi euh, fii la ñuy yemale waxtaan bi avant ñuy dem yeggali ko ak docteur Dieynaba Sall si moom tam wax ñu aussi termites yi ban ngëneel moo la ñu am ci wàllum kon agriculture parce que ISRA aussi lu jëmale kanam mbay bi comme aussi lay lay rek daal di def. Merci Yalam. Mm -hmm. Et puis euh, merci. Euh, j'avais dit que j'allais pas parler en français, mais je suis obligée de vous remercier puisque vous comprenez pas trop le wolof. <laughs> en tout cas, c'était un plaisir. Euh, le plaisir est partagé. On va dormir <laughs> moins bête ce soir. merci beaucoup. Merci, c'est gentil. alors gërëm bu professeur Kon Ndiaye ci li nga xamante ni indil lañu ko ci wàllu max tey nag bu émission bi jàllee yaakaar naa ne am na ay laaj yu bëri yi nga xamante ni ñu ko doon laaj ci max yu ñuy gis suñu biir kër yi rawatina suufu meuble yi tey nag am nañ ci ay euh, euh, tontu alors dañuy rek ànd ak keneen ku nga xamante ni dafa rek daal di liggéey tamit euh, ci wàllu max di docteur kon Dieynaba Sall si nekk ca ISRA bu bu Saint-Louis alors sànq ñu ngi doon wax wax waxu max nee naa max nu muy yàqee bâtiment noonu la baaxee ci agriculture yaa ma ko wax. waaw maa la ko wax <laughs> dama bëgg d'abord def lien bi. entre côté négatif max yi def naa loolu lañu gën a wane fii. Euh, côté négatif bu max yi dañ koy gisaat également si garab yi. Mhm. donc ñu dafa liggéey bi ñu defoon ci wàllu mm, mango yeeg euh, ñi nga xamante ne ñu am verger ci mhm. ci ci région de Dakar et de Thiès. Mhm. donc espèces yi ñu fa retrouvé mooy espèce yi mu wane léegi rek. juróomi espèces yi nga gis. ñoom dañu retrouvé ci ci kii bi ci. xam naa ni dafa dafa xaw a tuuti mais bon c'est toujours c'est les mêmes espèces mm-hmm. bii nii c'est cryptothermes mooy bi mu leen won sànq aussi boo xam ne dafay dafay attaquer bâtiment mm-hmm. dafay attaquer également euh, euh, maa ngi wala même bâtiment maa ngi yee bâtiment d'accord bii microthermes bi la aussi te te bii nii baaxu ci ci mango baaxul ci mango. waaw fii amus benn bu baax si mango. ok mooy attaqué bâtiment di attaqué mango également donc bii beneen espèce la également de petite taille nga xamante ne aussi dafay dafay attaqué dafay attaqué mango yi. Mhm. léegi y a la troisième espèce macrothermes mooy nga xamante ne day joxe ay néeg yu mag. Mhm. donc xëy na dinañ ko gis léegi ci biti. Mhm. moom moo nekk nii donc termite yu xaw a la gis nga. toujours organisation sociale bi benn la. <laughs> donc bii tamit beneen espèce la donc espèce bii mu ngi tudd Coptothermes. Mhm. vous voyez donc c' est souvent ay ay kii yu ndaw la rek toujours ay xeetu. termite yu ndaw yi noonu lañ mënee yàq. xeetu termite la. Mhm. donc cinq espèces yi en tout cas bi si mujjee mooy Odontothermes cinq yi en tout cas dañ leen di retrouver ci ci ci manguier yi ci mhm. citronnier yi mhm. en tout cas ci verger yi ah, bëri na ñun à Diass par exemple am na mhm. verger yi ñu fa gis très attaqué par les termites d'accord donc taux d'attaque yi dafay kawe donc lii vraiment li ma bëggoon wane la pour def le link avec les aspects dévastateur de des termites. nga xam ne moom la ñu am en commun. xam naa bu ñu jógee si bu ñu leen wanee termitière bi ba pare. ñu leen en fait ni ñu bonee ci ci ci kër noonu la ñu bonee ci ci mbay. ci mbay voilà ci garab yi. ñu dem xool termitière. am na benn termitière bu nekk fii ci Sabaté. waaw dem nañu jëli. wala un peu termitière wu macro termes. nu mel. te gis na ni fii si abordu bâtiment bi. Mhm. ci biir bâtiment bi. mais day am impact ci biir bâtiment bi. waaw parce que parce que termites yi mën nañu jógee. Mhm. si abord yi dem ci batiment bi. Mhm. def fa ay galerie mu def ay placage def ci ay dégâts. Mhm. te pourtant ci ci plante ornementale yi lañ leen di trouver pour euh, yeneen plante en mhm. mais avant ñu dem si termitière bi docteur lan mooy euh, lan mooy lu termite maanaam max yi ban ngëneel lañu am ci ci ci mbay. max yi vraiment côté négative la ñu gën a wane. Mhm. mais ci wàllu fertilité sol yi ñëpp xam nañ ne tey Sénégal par exemple au moins les deux tiers des sols dañu dégradé. te wane nañ ne max. mën na yokk fertilité sol yi. xëy na bu ñu liggéeyee ci. day fekk ñu dee ci biir day fekk ñu dee ci biir suuf si. wala pendant ñu ngi dund. wala pendant que ñu ngi dund ok galerie yooyu ñuy def. Mhm. dafay dafay augmenter. porosité bi. Mhm. day tax ndox di mën a air di mën a circuler. d'accord ndox di mën a circuler. Mhm. te matière organique bi tamit plante bi dina ko mën a jël parce que max bi day travailler matière organique bi. d'accord plante dina mën a euh, tirer matière organique bi. Mhm. et puis développer wu. d'accord surtout côté boobu lu am solo la. d'accord pour fertilité sol yi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ñoom ñoo fi nekk. on va dem ci kanamu peut-être terme tiers pour montrer un peu max yi ñu jot rek euh, daal di liggéey. Euh, lii moom ce c'est peut-être euh, une belle image pour montrer euh, kon max yi li nga xamante ni kon liggéey nañu ko ci ci suuf si nee dañ ko rek daal di tabax mais derrière am na toute une vie toute une colonie de termites ñoom ñoo nekk ci biir donc termitière ba ànd ni donc bii la macro termes bi def donc léeg-léeg ci ci ay côté ay Kédougou ay ay ay Dindef bi loolu di ngeen gis ay termitières yoo xam ne day day kawe gis naa ci benn Fatick waaw voilà day kawe donc bu tudd macrothermis en tout cas moo def termitière bi. Mhm. te espèce boobu aussi dañ koy retrouver si arbre fruitier parce que day dem attaqué attaqué arbre. Ah, mhm. te gis nga ne yemul ci def nii bi nii kese néegam bi kese. Mhm. tamit boo xoolee ci bois mort bële. waaw ah. galerie yaa ngi foofu. waaw mi ngi nii ci suuf waaw ci bois yi waaw am ngeen gis ngeen placage yu fële. donc am nay placage yu nekk fee. donc loolu loolu dafay wone ni rek max bi. capacité bi mu am ci mm-hmm. coloniser yeneen espace mm-hmm. parce que espace duñu ñu yem ci ci seen seen seen espace dañuy dugg ci yeneen am na euh, ñeenti critères yi nga xamante ne xëy na mooy favoriser ñoom ñu dem si benn espace toog fa mm-hmm. premier critère bi moom mooy humidité bi mooy li ma la wax sànq waaw beneen bi su xawee su xawee lëndëm tuuti parce que bëgguñu tellement lumière ñetteel bi moo xaw a nugg chaleur bi ak yooyu xam nga beneen bi moom mooy su fekkente ne am na xëy na ay yoonu ndox ay yoonu kii yooyu mhm. ñoom mun nañ si jaar dem implanté wu donc yooyu bokk na ci li nga xamante ne mhm. te benn bu gën a important moom mooy su yenn kër yi par exemple taabale soo ko bàyyee nii lu yàgg rek max yi dañuy ñëw waaw mhm. boo dul boo dul nettoyé boo dul déplacé ordures yi loolu mën na favoriser mag ñëw lu important la si suñu kër yi mhm. nga xam ne si kër yu mag ci cet gi waaw te xëy na suñu kër yi yemul kese ci Dakar boo xalaatee région yi mhm. am na loo xam ne day favoriser mhm. termite yi mag yi en tout cas egg seen seen kër yi ñu egg si seen seen bâtiment yi tout cas li ci ginnaaw euh, roi ak ren a ngi ci biir wala euh, ak wala ñi ngi ci biir mais aussi rek di tabax da ngeen professeur sànq nu mu expliqué nu ñuy rek daal di jëlijee bois bi indi ko ci biir am nuñ ci rek daal di def ba mun ko consommer ba ñoom tamit mën ci am luñ ciy gokki jox ko ñeneen ñi kon ñu daal di lekk loolu yëpp kon ay explication la yoo xamante ni tey jii euh, fes na seen émission euh, sama kër euh, du ñu ne guleen nag émission bi di wane kon ni nga xamante ne dafay rek daal di jëriñ askan wi mais bii moom particulièrement dafa nekkoon kon docteur benn sujet bi nga xamante ni sujet bi nga bi nga xamante ni tey jii askan wi dinañ ko rek te am na ay solution yu bëri ñu rek daal di indi mais bi ci gën a am solo mooy ñu euh, daal di teg ci ay këyit nee na kenn amatul droit tabax euh, te defoo kon étude de sol bi tax kon lu jëm ci wàllu max ak yi ni mel di nga ko mën a rek euh, daal di isolé waaw xam naa ci wàll boobu wàll bu am solo la tamit. Mhm. parce que nit ñi dañuy tabax rek ku ci am terrain tey da ngay dem rek tabax. Mhm. te gis nañ ni ci yenn réew yu mel ni France. Mhm. am nay textes yu bari ñu teg ku war a tabax am na loo xam ne da ko war a def da nga war a indi spécialiste mu defal la diagnostic thermique. diagnostic thermique ça s'appelle. soo ko defee ba pare papier boobu dañ ko war a légaliser. boole ko si documentation bi nga war a am yëpp pour am sa autorisation. de construire donc soit da ngay jënd. ou da ngay louer même sooy louer. soo déclaré wul présence de termite ci sa espace boobu. boobu mun nañ la daan mun nañ la teg daan mhm. mun nañ la amande nga fay mhm. parce que yow gis nga max bi sa kër te déclaré woo ko te te mën na contaminer yeneen kër yi mhm. donc loolu lu am solo la si pays développé Sénégal defe naa benn texte législatif la si gis boo xamante ne vers euh, je pense 2010 am na benn bu ma gis si wàllu urbanisme ñoo ko proposé woon moom mooy bépp bois booy utiliser si construction en tout cas na nga ko def traitement antitermite c'est ça te traitement antitermite boobu da nga war a choisir en tout cas ñun de la recherche. dañu jàpp ne bépp traitement booy def chimique surtout. dafa am dafa am norme. parce que am nañ benn comité bu sous régional bu travailler ci ci ci pesticide ou bien ci insecticide yi en tout cas ci wàllu yooyu. bépp produit booy utiliser dafa war a doom produit boo xam ne dafa am autorisation de vente ñoom dañ koy saytu. Mhm. soo ko jaayee Sénégal nit di ko utiliser tamit. boobu ñoom ñu la jàppee mun nga ci am ay ay problème donc am na ay produits yu am. dañuy isoler termites yi mhm. yu existé yoo xamante ne mun nañ ko traité termites yi. Mhm. mais il faudrait que mu respecté normes yi nga xamante ne. moom la ñu tëral ci wàllu national bi surtout si wàllu sous si wàllu en tout cas merci docteur euh, ci disponibilité bi mais aussi ci ni nga ñu gunge euh, ci émission sama kër maa ngi ko doon wax euh, coordination yeeg TDR yi ñoom ah ay ay scientifique lañu <laughs> donc fallait que ñu préparer émission bi bu baax a baax comme ni ñu koy defee kon ci yeneen émission bi vraiment di la ci gërëm di la ci sant ci sa disponibilité vraiment merci merci beaucoup prof docteur. merci merci Diène ba xëy na benn wàll kese dama ko fàtte woon. waaw termite am duggee si net bi da ngay gis termite chercheur d'or mhm. link bi entre termite ak or n'est-ce pas Mohamed en tout cas zone zone aurifère yi termite yi daal am nañ fa njëriñ lu am solo la xam naa ñu bàyyi ko xel rek waa kon euh, waa waa euh, dindi ferlo ak ñi nekk ci côté boobu kon euh, ñu bàyyi ci xel en tout cas di ko gërëm bu baax a baax ñu jàll ci page de publicité ñëwaat jaajëfal bu baax a baax euh, waa Sococim euh, industrie euh, léegi nag comme ni ngeen koy gisee ci image yi ñu ànd ak beneen partenaire di waa banque de l'habitat du Sénégal ñoom nag ña fa doon liggéeyee te nekk léegi ci ab retraite ñoom ñoo organiser woon ab randonnée ngir gën a kon rataxal diggante yi wane itamit ne banque de l'habitat du Sénégal du rek da ngaa retraité tax nga fàtte kon li nga xamante ni moom mooy kër googile kon benn randonnée bi nga xamante ni directeur général bu banque de l'habitat du Sénégal ma woon ak yeneen i kilifa yu doon liggéeyee ci banque bi ñu seetaan leen seen randonnée bi ñu doon amal. Monsieur le Président des anciens de la banque, de l'amicale des anciens, je voulais vraiment remercier tout le monde. Je voulais juste rappeler

Parce qu'on finance l'habitat et quand on dit habitat, c'est les fondations qui sont importantes. Nous tous, on est des niveaux qu'on rajoute sur les fondations qui ont été créées. Moi, j'ai rejoint la banque au moment où on déménageait de la République à ce siège en portant les cartons, n'est-ce pas? Donc ça signifie que c'est un processus et On est venu à la banque en même temps que les Alingou les Saïd Diaw et tout. Hmm. Et on est toujours resté ensemble. Donc ça montre que la banque, c'est une famille. Et la banque mène à tout. Quand on est BHS un jour, on est BHS tous les jours. Je voudrais vraiment féliciter l'amicale des anciens parce que vous êtes restés soudés avec toutes les générations de retraite. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di rafetlu initiative bi ndax dana permettre entre autres initiatives ñi nga xam ni ñoo doon liggéey BHS ñu dajawaat euh, dajawaat dans un cadre peut-être euh, moins formel dans un cadre purement sportif euh, moo tax démb bi ma c'est vrai que Abou Ndir waxoon na ma information bi man na leen dinaa ñëw participer Euh, gëj naa sport nag j' espère que je vais tenir j' espère que j'aurai pas de crampes de toute façon sama oto mi ngi nii di ma topp donc au cas où et puis les sapeurs sont avec nous donc je pense qu'il y aura pas de problème en tout cas c' est une très belle initiative bu ñuy encouragé euh, yu mel ni baax na euh, yàlla def na waa banque de l'habitat ça a toujours une famille Euh, même après, on a la cité BHS, on a également d'autres qui habitent ailleurs. Mais heureusement, d'ailleurs, qu'avec les réseaux sociaux, avec le groupe WhatsApp, on retrouve euh, vraiment euh, tous les anciens, tous les anciens collègues. J'ai manqué également euh, féliciter Bokar. ci encouragement bi muy def ci amicale parce que loolu li ci def lépp man maa ngi koy yëg à travers les réseaux sociaux ensuite yéen a wax kon là aussi dañ koy encouragé lii c' une très bonne chose et puis vraiment bu mu yem fii na continuer jërëjëf. c' de faire euh, revivre en tout cas nos vieux souvenirs à la banque c' également de de faire un lien de stimuler le sport au niveau des anciens qui sont souvent comme ils ne travaillent plus ils sont. Euh, ils s'abonnent un peu à la sédentarité et le fait de les pousser à la marche, c'est les pousser vers une meilleure santé quoi, de leur corps et de leur esprit. gërëm bu banque de l'habitat du Sénégal ci sujet bi nga xamante ni indil nañu ko ba léegi euh, pour wane ne banque de l'habitat sénégalais yeeg fi tax a jóg dimbali leen ngir ñu am ci wàllum dëkkuwaay moom moo leen fi tax a jóg kon di leen ci gërëm bu baax a baax fii la ñu yem ak yéen tey jii dañoo tànn nag jeexal ko euh, ci fi nga xamante ni euh, moom mooy dëkku max yi maanaam ci ginnaaw boo leen gisee mooy seen kër gi nga xamante ni boo ci ubbee di nga gis kon roi reine bu rek daal di toog waaye aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy ouvrier yi di wane ne max bi ñu gis ni moom mooy max bi nekk ci kër yi moom mooy max yi nga xamante ni ñoom ñooy attaqué bois yi am na max yi nga xamante ni ñoom ñooy attaqué aussi lu jëm ci wàllum euh, papier di ci def nag ay dégâts yu doy waar gis ngeen nag liñ ci wax yëpp ci wàllum euh, kon dégâts waaye aussi ay solution yu ñu rek daal di indi pour mën a moytandiku lu ni mel fii la ñu yem ak yéen ci émission tey bi di gërëm bu baax équipe bi ma àndaloon Alioune Diagne Ahmed Niang Thierno ci ginnaaw ak aussi euh, Pape Silla Nourou Wan moo nekk ci montage bi di ko ci gërëm bu baax fii léegi fukki fan ak juróom fii ci télévision Futur Média seen émission sama kër ak yeneen i sujet ginaar gi baax na ci kër gi